al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam al ibadatu wal xidma jóg ngir sàmm ndalal xam-xam ak laabire auzu billahi min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa moolana muhammadin makin ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi laaj eh, ci wàllu franc-maçon ak illuminati ak eh, yi seytaan yooyu muy la sataniste ndax war nañ leen a ragal déedéet eh, dañ leen di moytu ak di waggar ba la ñuy def duñu ca duñu ci duñu duñu nu mën a génn ci li nu nekk duñu nu mën a yóbbu it ñoom ca lañu nekk ndax sunu boroom moo sàkk nit sàkk jinné sàkk lépp lu nekk ci àddina bi te li tax mu wàcce nu fi mooy nan ko jaamu te jaamu googu bu dëggoo wax na ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultaan wàqanteeg seetaane xamal ko ne ko sa fexe yi néew na doole lool wala boog amul kàttan waaye néew na doole te képp koo xam ne sama jaam la bu wér la ma ko diggal lañ séq mu daje def kemtulaayu kàttanam ci sama ndimbal moom doo am ci moom wenn lay wala wenn yoon mu waxaatit ne innama dalikum alcheytaanu yuxawifu awliyaahu fala taxaafuuhum wa xaafuuni in kuntum muminin surat ali imran aya mu wax ne yooyu la mbir day seytaane moo ci tiitloo ña fare ak moom kon nag bu leen ragal waaye nanga ma ragal wala bokk na ngeen ma ragal bu fekkee ne gëm ngeen kon li sunu boroom wax bu fekkee gëm nañ ko rek kon euh, tiit ak ragal waruñ koo def seytaane waaye lañ war a ragal mooy di ko tiit mooy dem di fare ak moom walla di ko def kilifa yàlla nañ ci yàlla musal euh, kon nag euh, di fatfati wala di tiit déedéet du ko mat nañu jéem a nekk rek dëgg-dëggi jaame yàlla sunu borom waaye nag ñu waggar leen bu baax a baax fexe ba dañ kumpa ci ñooñu ak seeni pexe seeni nax ak ndëgg sërëx yi nga xam ne dañ koy tegal ndax seytaane moom dafay dig nit ak ñàkk di ko wan matériel fu ñu toll di ëppalante ak man-man lante eh, nga xam ne nit ki ci bitteem walla ci zahir si dem nañ ba ci loolu moo ci la ëpp ci lu ñuy xame nit walla ci lu ñuy joxe nit gëdda walla dayo te loolu lépp pexe la yoo xam ne seytaane mooy mooy mooy doxe noonu Eh, Seydina Ibrahim alayhi salaam eh, bi muy wàqante ak eh, nitu jamonoom ba ñuy jaamu xërëm di bokkaale lam leen tontu leer na mu ne leen yéen am ngeen fitu ñëw di dàggasante man ci yàlla ji nga xam ne moo sàkk lépp te yéen yi ngeen di bokkaaleel du dara yàlla ji nga xam ne moo moom lépp xam lépp xanaa seen xel yi dafa ànd tut ak ne leen waaw bu may ragal naka lay ragale yéen yii ngeen xam ne moom ngeen di jël di ko bokkaale te it yéen bokkaale googu ni mu rëy ci yàlla ragalu leen tiitu leen ci bokkaale gi ngeen di def man may ragal seen bokkaale gi nga xam ne amu leen ci dara dara lu ngeen ci mën a layal lu dul ne rek neex na leen ngeen topp seeni bakkan waaye yéen eh, seen kuréel gi ngeen nekk ak sama kuréel gi ma nekk man maak ñi gëm ana kan moo ci gën a yayoo nekk ci kóolute ana kan moo ci gën a yayoo euh, di xoole keneen ka ca des ne kooka dafa war a ñëw fekk si ko bu fekkee ne li ngeen di wax xam ngeen ko kon nit ki wërta ragal waaye na fexe ba xam lii lan la bu dee lu ñu war a jariñoo la mu jariñoo ko bu dee lu ñu war a moytu it mu moytu ko ndax ci téere boobu ñuy wax axdar yi principe yañ cay njëkk a fësal te mooy jullit bi na fexe ba lépp lu muy def wala li ko wër na fexe ba lu muy dugg wala lu muy génn wala lu muy yëngatu na xam la ca suñu boroom natt wala boog la cay àttef suñu boroom waaye bu dee lu muy bàyyi bu mu ko bàyyee doog nit ñi rek bu dee lu muy defit bu mu ko defandoo ak nit ñi waaye na xam dëgg-dëgg la ko sunu boroom togg teg ko ko nga xam ne bu dee aw ñam la la mu ca lekk jëfandikoo ca mu dugg ci biiram loola moo koy jariñ na muy def ba di ko toppatoo ca na mu ware naka noonu it donte la misaal mi dana sore lool noonu la war a def ci lépp lu muy man di doon kon daal di tiit ko ragal moom déedéet ndax digganteem ak borom bi sax jaam bi dafa war a nekk diggante ragal ak yaakaar yàlla rek moo xam te noonu dañuy am euh, tiitalaate dafa bokk ci euh, dafa dem ba xaw a bokk ci suñu suñu culture ndax euh, jàngal nit ki mu leer ci boppam mu wattandiku dara ci tiitaluñ ko dafa mel ni sax lu mu doon dañ koy faw ñu euh, euh, dendale ko ak lu koy tiitloo ci misaal euh, xale bu ndaw rek ci suñuy aada bu buñ koy defar jikkoom ngir di ko wax mu tabe wala muy maye dañ ko cay tegal ca wet gane ko ku maye nangu Euh, sa yaay day jur jaan wala day jur nàngam ñu di la ko bootal wala di la ko uufal mu di la mat nga xam ne euh, bu xasee may rek dootu ko dootu ñimeetee dellu gannaaw ca ca la mu defoon loolu dana dana dana dana dana tax xale bi du nangu la mu defoon waaye defu ko par conviction waaye da koo def ngir ragal euh, tiitaange yooyu nag dina topp nga xam ne dañ lay wax ne la dana màtt ak du màtt bu ko jox sa loxo waaw loolu moom mën naa nekk ixtiyaat yi nga xam ne nit ki da koy def ngir wattandiku euh, wala ngir moytu wala ngir bañ a waaye beneen bi ci des muy ku ndobin rey sa maam boo séenee luy ñuul euh, dawal loolu it ba tey euh, dafay sori lool ak jom wala dogu wala xalaat ndax ku ndobin rey maamam eh, dafa war a fexe ba xàmmee ndobin ba ndobin du ko mën a bett fexe it xam lu ndobin di bañ wala lu muy nangu ba ginnaaw rey na maamam moom bu gisee ndobin ndobin man koo bañ koo mën a rey wala boog moom mu rey ndóbin defal revanche maamam eh, yooyu yëpp nga xam ne daal eh, nit ki ci bi mu doonee xale ci lañ koy e, yar ci ñàkk kóolute ci boppam loolu bari na loolu lu mu def ci nun ba lu ñu nune lii baaxut rek <clears throat> dañuy daal daw daldi banku lu ñu ca xool lu lu baax dootuñ ca xoolati it sikk lu ñu nu baax na it e, mën nañ caa bañatee xool sikk mënati nañ ko ca bañ gis muy loo xam ne lu doon xam ko balaa nga koy ñeme wala nga di ko ragal wala la nga ca war a ñeme wala la nga ca war a ragal xam googu ak ubbeekuk euh, bopp googu ak mën a ràññetle loolu mooy li nga xam ne moom la ab jullit rawatina ab murit war a war a taxawe foofa it la war a la war a nekk wërta doonit koo xam ne dafay wàlli bañe walla soxlu nit ngir bañ ko rek walla bëgg ko rek ngir bëgg ko waaye lu muy doon na ko teg fu wér foo xam ne euh, dana am ay firnde walla bu mënta am firnde it moom dana ci gis lu ko wóor loo xam ne lii lu wér la euh, mbokk mi laaj nag ci wàllu franc-maçon wala illuminati wala munawirun wala xarakatu albannaun al ahrar le franc-maçon wala les frères muy ñoo xam ne li ñuy dàkkenteloo moo di tabax ak jëmmal dara lu ne léng bët di ca mën a tege nga xam ne ñoom euh, arafu G wu mag la ñuy jël ci alphabet wu latin ñoom sax ni ñuy définir mbir mi jàpp naa ne ñoom ca biir ñooy xam walla boog ñene ca kaw rek ñoo koy xam waaye bari na sax ñu ci bokk ñoo xam ne dëgg dëgg mbir mi ay lënt ci biiri lënt di lënt ci biiri lënt kese mooy li nga xam ne moo ko composé waaye ci gàttal daal mooy ñoom li ñu wax mooy gëm nañ jenn yàlla joo xam ne moom moo fent moo sos lépp yàlla jooju nag niñ koy melale ñoom am na ci ñu jàpp ne xëy na keneen la moo tabax àddina bi waaye am na ci seen biir it wala la ci ëpp te la ci gën a law mooy la gëm mooy euh, seytaane muy kañu dàqe woon ca àjjana nga xam ne moom jëmmi aw sawara la te loolu duggante nett liy téere yi dafay fësal rek ne iblis mooy jëmm jooju gëstu yuñ mën a defit faaw ca foofa lay soog kon nag loolu rek doy na tegtal ci seen mbir moom euh, euh, kenn waru koo ñaju di ca dugg waaye it nag wares na koo xam ndax ginnaaw suñu noon la euh, ab noon loo ko gën a xam mm, ci nga koy gën a mën a moytoo waaye it boo koy daw rek te xamoo fooy jaar xamoo pexe ak ndëgg sërëx ya muy teg te yàlla dalal na ci sunum xel ci ne moom kat dafa bari pexe wante amul doole amul kàttan te it ku dellu ci moom dana la aar dana la sàmm ba ñoom duñu am ci yow benn man-man wala benn pexe kon loola mooy li ñu war a ittiwoo mooy li ñu war a xëntewoo waaye di tiitaka yox yoxi wërta doon sunu mbir yàlla defal ñu yoo xam ne yu bari nit ki buy nodd wala buy tudd yàlla rek wala muy jàng alquran eh, seytaane dafay lox di daw ak eh, di ko sori ak yu baree bari ci ay azkar yoo xam ne lu mel noonu ma nga ca waaye ñii nag nga xam ne ñoom la ñuy wooye ay franc bu ñuy xool jamono jii ñu toll dafay mel ni dañoo wax ne eh, yahudiya yahudiya moom diine la te jenn diine moo am mooy lislaam ndax alquran saa buy wax ci ñooñu seen diine yi ñu yoroon xay na askan ya ñu bokkoon moo doon tudd noonu waaye diine yàlla ji moom lislaam la la ko dale ci seyduna aadama jaar ci sayduna nuux ci Ibrahim Moussa Isa alayhimu salaam ba ci moom lislaam jooju mooy li fi nekk ñu gëm rekk jenn yàlla ji nga xam ne moo sos lépp eh, moom lépp sañ lépp te di ko taxawe loolu nag ñii di franc lijjanti nañ ba lënt moomu ak nëbbutu gu metti googu ci la ñuy ci la ñuy dox euh, nanguwuñu ku bokk ci geneen diine bi ci di ci doon kilifa xëy na ñu naaw ndawaan ñi nag wala ñuy soog a tàmbali moom danañ leen nangul loolu waaye ña nekk ca kaw moom euh, seeni bakkan ak seytaane la mu leen digal ak lañ jàpp ne lii mooy li gën ci ñoom loola rek la ñuy gëm waaye ngir nëbbutu nag ak mën a denc seen liñ yor ñu bañ di leen joxoñ ak di leen xàmmee jaral na leen ñu nangu yooyu yëpp nag nangu nit ki bokk ci diine rawatina ci diine yi christianisme nee nañ nit ki mën na koo doon ba noppi nekk ci beneen diine bu mu doon it nee nañ e, nit ki mën na koy tuddoo di def ya ñuy def ba noppi e, bokk ci waaye ku mel ni Jean Paul II mas naa def c'est ab fatwa lañ koy tudde xëy na wala ñoom lañ ko doon tudde ak leeral ci ne nit mënta doonandoo ab chrétien euh, doon ab franc-maçon euh, Cheikhul Azhar ci atum 1984 coow lu mel noonu jógoon na ci franc yi ndax nit mën naa doon ab jullit doon ko waaye moom la mu tekki rek wala boog la mu àtte mooy ne ca jamono jooja nit mënta doon jullit di tuddoo lislaam ñu di ko wéral muy doon ab franc-maçon ngir su fekkee ne la muy def ma ngi koy defit fa ñu jëm ak moom mooy dem ba rocci lépp loo xam ne ngëm-ngëm la woon wala lépp loo xam ne lu doon jëmmal euh, lislaam jooju la li ko may doole nag moom euh, franc-maçon googu wala loge yooyu réewum États-Unis fenn jiituwu ko fi ndax ci bi ñuy am indépendance euh, ña doon bind euh, seen dustuur ba te mooy constitution ba ñépp daanaka niñ ko tënk ci ak franc-maçon lu bari it ci seen président yi fa mas a jaar bu dul da ca ëpp yit lim bu bari ay franc lañu woon xalaatiinu doxalin woowu it daanaka mën nañoo wax ne moom lañ tëggee loi ak ya cay dox yépp donte la ci bible lañuy ñuy teg mooy diine ji fa gën a law ca lañuy ñuy àttewu tamit ginnaaw diine dafay nekkoon ca jamono yooye ñoom biñ dikkee summi diine jooju ni mbubb ci nit ñépp ci lañu taxaw ngir dëgëral seen pas-pas bi ba bu yàggutit góor ñi rek ñoo ci daan sañ a bokk euh, wax nañ ne ci lenn ci seen loge yooyu li tax jigéen ñi bokk ci mooy dafa amoon seen ndaw su doon yërndu seen yooyu ñuy def bu nit di dugg ci biir bi ci bees ñu di ko ca initier mu yërndu ci bunt bi wala ci porox ndoll wala ci bën bën boo xam ne daal ma nga doon gis lañ doon def ci biir bi ñu génnee nag ba gis ne wala bañ yégee ne xam na li xew ci lañ ko woo moom daal di koy initier nangul ko ko ngir mën a denc secret boobu ba euh, man koo saytu ba dootu ko lawal di ko génne di ko yóbbu fenn waaye organisation la boo xam ne daal bu teguwut ci jikko ju rafet la bu teguwutit ci jikko ju baax la ñoom daal li leen ñor mooy dundal seen bakkan fexe ba lépp lu ñu bëgg rek ci àddina ñu am ko loola nag danañu tiital nit ñi wan leen di leen am nañu kàttan sàngam ak kàttan sàngam waaye man ci sama wàllu bopp gëw ni ne kàttan gi deme na noonu bare nañu nag ay pexe ci gouvernement yi réew yi doxalin yu bees yi fenn fu ci nekk te dañuy continuer di recruter ñi nga xam ne yor nañ dara wala ñi nga xam ne am nañ kàddu wala daal mën nañoo jeexital ci loo xam ne dana leen dolli ci seen toogaay ak seenu nekkin waaye nag ay nit lañ ñoo xam ne daal du ñu nangoo daanu wala du ñu daanu wala boog du ñu nangoo daanu ndax jógaguñ sax man jàpp naa ne bay bay bay bay daanu eh, ndax lu xew rek dañ koy daal di revendiquer wala luñ leen ca ji nit duñ ci dindi kenn kumpa te ñu bokk ci seen biir sax ña ngay bëgg yu ñu amut ña ngay taxawal lu taxawut waaye danañ ko justifier ci ne kii kat moo gën a sellal kii moo gën a euh, gëm kuréel gi kii moo gën a taxawu kuréel gi ba tax bu ñu xëccoo dara ba kenn ka ñàkk kon kon ka ñàkk dafa amutoon pas-pas wala dafa amutoon positif bokk na ci li ñuy tasaare it nga xam ne mooy li ñu li ñu li ñu gëm ñoom mooy ne diine eh, li ñu li di woote naan nañ def lu baax eh, di ko tuddee ak jaamu yàlla nee nañ yooyu même bu fekkee ne tënkuwoo ci jenn diine it waaye def ko rek eh, muy lu baax loo xam ne dana jariñ nit ñi wala amal na keneen intérêt wala mu amal la ko yow soo ko defee it njariñ loolu da koy am waaye wërta ànd ak daal pas-pas boo xam ne dafay dafay dafay dafay da nga ciy yaakaar ab yool ëllëg wala di ci di ci di ci dëgëral sa nga yàlla ñooñu nag kon doonuñ ñu seen mbir woyof na donte la diisut sax nag waaye fa ñu leen bëgg a àggale it euh, àgguñu fa euh, ci xelit lañuy dox fu ñu dem ba gis ne lii moo leen bëgg a euh, gàllankoor buñ ko mënee déjjati dañ koy déjjati buñ mënee jaar ci kawam jaar ci kawam buñ manee maslaa ba boole ko ci seen biir ñu boole ko ci buñ ko mënut ñu wër ko ndànk jàll dem seen yoon te kumpa gi moom ñu di ko sàmm ba ku ko dégg ku ne saw fit di fërfëri ku ko dégg ku ne di tiit loolu daal bokk na ci seen ay ay ay ay mbir bokk na it ci seeni ay jumtukaay waaye ñoom ci seen bopp sax mbir mi ay lënt la ci biir lënt yoo xam ne ñoom sax bari na ci ñu ci nekk ci biir te lay xew dëgg-dëgg euh, xamuñu ko teg it ay sart yoo xam ne ku ca bëgg a dugg danga am nangami at da gëm nangam da nga libre ci sa bopp ba keneen du am influence ci yow waaye loola buñ ko waxee it yow libératoo ndax jàpp nañ la léegi def la seen jaam eh, keneen dootu am ci moom kàddu keneen dootu am ci moom baat bu yëf yi naree jaxasoo nag ñu ne bindkat bu mag bi moom koo ko wax bu fekkee ma nga ci diine da nga naan kon sama yàlla ji la ñuy wax waaye ñoom fekk na lañuy ñuy gëm ak la ñu ka leen tax di wax moom mën naa wute lool ak ka nekk foofa ak la mu ne moom la gëm bu dee ci chrétien bi mën nay jàpp lam jàppoon bu dee nag jullit la it mën nay jàpp lam jàppoon waaye ñoom bindkat bu mag bi luñ ci jublu bindees na ci ay téere téere téere yoo xam ne mëneesu ko lim tuuri téere yi rek eh, doy na sëkk ab liggéey waxuma laak la nekk ci biir ak woo ak wuute ya ca nekk ak lënt yaak mbir ya deme noonu kon daal ñuy muy loo xam ne ku koy gëstu yit nga di ko gëstoo ci gëstu koy gëstu nga xam ne eh, saxaloo wéraloo waaye la ngay saxalee ko wérale na nekk ci li alxuraan ak diine yi lislaam sunna wax ko ak njàngalem ku mel ni Cheikh na Ahmad al boo ci tënkoo rek la ma waxoon rek muy la sa jablaat waxoon ne bañ a yor melokaanu wala jikkoy aw xob waaye doon ak ëkk goo xam ne lu jóg lu mu rëy rëyit eh, da xaar ba mu dal nga xool la cay dëgg ak la ci nekkul dëgg nga mën koo jariñoo man koo itama jëfandikoo booy xool ñoom li diine di wax lépp muy nit ki dafa war a am ànd ak xelam euh, dafa war a doon ku baalix yooyu yëpp da dégg ñu ne bala cee kenn am dana am 18 ans na doon koo xam ne ci yaramam dafa wér ci xelam itam dafa wér Euh, na amit nit koo xam ne ku bokk ci mbir mi la koo xam ne daf koy taskiya maanaam mooy wane ne kii kat euh, mën nañ ko boole ci yëf yi ndax nattu naa ko xam naa fu mu xelam toll xam naa fu bëggam toll fekk nag moom moomu it mu sàkk ko euh, te jàng ba tollu fenn fi nga xam ne dafay am lu mu gàtt gàtt diplôme boo xam ne dafay jóge ci euh, ab université walla lu méngoo ak moom su ko defee ñooñu moom ñooy doon ñi nga xam ne dañ leen di sartal te mooy ñi koy jiite waaye ñi nga xam ne nag al topp rek la ñuy doon moom ñooña moom buñ gisee ne kii euh, ñoo ko soxla dootuñ cee nekk ay sart dootuñ ko ca xool waaye nañ fexe ba am ko rek ci seen biir fexe ba am ko boole ko ci seenu mbooloo yooyu yëpp nag di mbir yoo xam ne euh, bu ci nit di xalaat mën na koo yóbbu foo xam ne fu sori la waaye xamandoo lépp wala dem gëstandoo lépp su ko waaye noonu liñ ñu sant te ñu war koo def euh, lislaam leeral na ko sëriñ Tuubaa dikk jàngal na ko ci jàngaleem moo xam ne mu mu mu tënku la mu fasu ngir njàngaleem sëriñ Tuubaa gëstu yu metti yooyu fenn fu nekk nga dem fa ak wuute yooyu nga xam ne bu fekkee ne danga ngaa nafum xel ni man wala nga bërëc mën ngaa dem ba mujj wala yaa ngi taxaw ci seli bi yoon doo xam foo cay jaar waaye moom fenn fu ne dafa dem lay lëgg-lëgg ba lay e, niw wa bu doon soow la bu doon ne bant la lay lubb ba nekk ci biir muy xol ba bu doon ab yax la ñu ne yokku ga nekk ci biir moom lay jël ci xeetu xam-xam mu mën di doon wala masala mu man di doon loolu mu jël ko andil ñu ko bu ñu tënkoo ci masala moomu loolu dana yomba euh, settantal lool dina yomba faram-fànce lépp lu wuute ak loola rek dañuy daal di xam ne lii kat kon bokkut ci lu ñu war a lu ñu war a lu war a dugg la ca des mooy mbir moo xam ne gis nañ ko suñu xel di ci lënt wala mu ciy jiixi jaaxate te bu waaw dañuy dellu ci hadisu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne da'u maa yuribuka ilaa maa laa ñëwaat mooy rek ci li nga xam ne mooy la nga xam ne leer na ci suñu bopp la ci suñu bopp ñu bàyyi ko fa te eh, lépp loo xam ne lu ñuy amal njariñ la min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaani eh, di bàyyi lépp loo xam ne amalul njariñ wala amalul keneen njariñ loola it ñu di ca bañ a xuus di ca bañ a dugg ci géej goo xam ne maîtriser wuñ ko loola dana ci dana ci am solo lool di maa ngi guddal lool waaye lii daal ci gàttal mooy li nga xam ne mooy luñ ci jàpp na ñeneen ñi dinañ ci mën a indi commencé ci gëstu xóotal ko ba man cee man cee man cee jariñ ñi nga xam ne ñoo koy sàkku euh, ni ñuy xalaatee ci wàllu àddina bi ndax seytaane moo ko yilif déedéet yàlla moo ko yilif ak nit ñu baax ñi li suñu boroom wax ne lii nañ ko def eh, bari nañ ay pexe nag ak ay man-man eh, bari loolit ay koom-koom ak yuy xoy-xoy te loola di neex ci bakkan nit di ko mën a bànneexoo waaye ngëneel dafa nekkul ci ak bariwaay ngëneel mi ngi ci eh, mbir ma dëgg-dëgg fu ca nattale wala nu mu mel ak bëgg-bëggub suñu borom ak la mu ñu jaarloo mu yoon wa mu ñu tànnloo kon bakkanit bakkanub doomu aadama mën a jeng lool jëm ci lu gënul ci moom lii ñu yonent bi wax sallallahu alayhi wa di ne yoonu àjjana kat eh, dañ koo fegate ay nattu ak i naqar ak i tiis ak yu metti maanaam bu doon yoon wu ñu dox nii rek ci e, misaal bari ay dégg ak ay pakk ak yu deme noonu waaye yoonu sawara it yal nañ ci yàlla musal doon yoon woo xam ne dañ koo fegate ak lépp luy neex ak lépp luy bànneexu mu aadama kon nag nun ñiy jaar ci yoon wi yàlla jox ñu teraanga ju toll ni e, e, lam yox malaaka ya muy mënuñoo mooy yàlla ñun teggil nañu ko ndax ne jox nañu am xel lamu joxut mala it mu di am xel jox nañu ko boole ñu loo xam ne jox na leen ko muy man a bànneexu ak yu demee noonu ba noppi teg ñu ne ñu kat yéen dama leen a bàyyeeg seen bopp ak eh, sama ndimbal ñu ngeen mën a delloo ci man rek ma dimbalee leen noona kon loola bu ñuy ragal bu ñu ragal jëmmi mbir ma waaye nañu ragal suñu bakkan suñu bànneex àdduna ak seytaane fexe ba ñeenti noon yooyu ci nashadu ni ko Sëriñ Tuubaa tënke woon ci di xiif di ñàkk nelaw di moytu waxi caaxaan di tudd yàlla ci kaso yi nga xam ne yooyu la ñuy tëj ñeenti noon yooyu yooyu lañu ñu war a focaliser wu waaye du jëmmi mbir mi rek waaye nañu fexe ba defar sunu bopp defaru googu nag lislaam teg na ay yoon yooyu nit ki dafay mujj euh, tudd yàlla ak di ko jaamu di ko teewlu mooy dàq ci moom leneen lu dul loolu te loolu mooy li nga xam ne moom la Cheikh na Ahmad al euh, dund dund lu woon ko tax mu dawoon ñëpp ñëw ci àll boo xam ne ab gott la ak i mànding ngir rek man faa toog jaamu fa yàlla ndaxte al aaqiba li taqwa eh, li am dëgg-dëgg solo ci ragal yàlla rek la nekk te mooy bàyyi xel yooyu wala boog jàpp ko xel te di dox doxin woo xam ne dara lu koy sëtëfal walla luy teemu àgg ca lam bëgg du ko du ko am Eh, charte yi nga xam ne nag eh, bu jamono tollee fii moom la murit yi wala sax jullit yi war a taxawe ngir eh, maamam yi du leen yóbbaale rawatina murit yi loola de lu lu lu simple la ndax sëriñ bi ni ma ko waxee sànq rek moom fekkoon na lépp lu di jikko ju rafet lépp lu di doxalin lépp lu di tëralin mu dem fekk fa ko waroom xam-xam yi bindoon mu segg ko seggaat ko lay ko tànn ca belli ko dindi mbellit ma teg fële jël mbell ma eh, jox nu ko mu doon loo xam ne eh, luy neex jëfandikoo la lu mënee sa jëfe la tamit te lu leer ci xel ak xolit lay doon mu defal ñu ci rek ay taalif yoo xam ne dafay nuru lu gàtt lool lu mel ni nahju xadaa il xaaj lu mel ni magaaliqu niiraan zaadu zawi taallim wala taw eh, zaadu zawi taallumi eh, ak lu mel ni xuqal bukaaw ak yi demee noonu yëpp yoo xam ne nit ki bu nu bu nu bu nu bu nu gis ne léegi jamono ñëw na rek eh, am na lu ñu jiital loo xam ne nii faaw mu yóbbaale nu sëriñ Tuubaa bi muy eh, bind ak di xettali di yare it dafa am fu jamono tolloon xëy na fi mu toll léegi demewutoon nii ci yëgandoo geeg eh, gisandoo gi mbir yëpp ak lépp dajeendoo ci sunu loxo àdduna bépp doon as ku tumbal soo xam ne ku nekk yaa nga tiim ka ca des ka ca desin moom it tiim la booba demewut noonu waaye nag yàqute jamono it amoon na boo xam ne eh, ca jamono yooye kenn daawu ko minimiser wala nga di ko doyadal loolee mu tegoon nag jamono du ko romb mukk li mu wax ci eh, nahju xadaayil xaaji eh, lam ci tënk rek dafay tekki loolu mu ne kuy soog a dugg di sóobu ak ku yàgg a ñoo ci bokk yam yiw wi ci nekk du jeex te du sàppi mukk nit ku am pas-pas wala ku jëm fenn kon yooyu bu fekkee ne indiwaat nañ ko dund ko def ko mu nekk suñu tableau de bord ñu teg ko rek lépp lu ca nekk ñu di ko jëfee luñ gis mu wuuteeg loola nu romb ko rombi nu ko tedd jàll loola rek mooy taxawaay bi nga xam ne naka jekk ab jullit noonu la daan taxawe te mooy tënku ci ndigal euh, lañ ko def lañ wala boog lañ ko def loo mu di ko def tënku it ci ndigal ci bàyyi la nga xam ne moom lañ koy tere waaye buñ ko seetee seetin wu sori wala ñu bëgg wut doxalin wu spécial déedéet loola duñ ko am te mën nañoo dem ba lañuy daw sax la ñuy dugg mooy raw lañu ñu doon euh, wala boog mooy yées lañu doon la ñu doon daw waaye noonu daal nanu nekk ci euh, ndigal yi tey daw tere yi nga xam ne ki bind sàkk ñëpp moo nu ko digal tere nu lam nu cay tere keneen kum mu mën di doon ci àddina bi kàttan bu mu mën a yor ak influence bu mu mën a yor bu nu nekkee ci lële rek bu boobaa bariwaayu ko ña nga xam ne ñoo nekk ca la dul noona euh, bu munu jaaxal nanu fexe ba nekk ci ndigal li ndax toolub yàlla ku ciy xëy e, néewug mbooloo ma wala barik mbooloo ma du tax mukk yàlla yokk la muy sóor néewug mbooloo ma it du tax mu wàññi ab ñu te saa bu añ bi jotee ku mu fa fekk dana la jox nga añe añ booba kon e, mbooloo ak bariwaay e, waruñoo jaaxal ci bu fekkee ne dañoo nekk nekkut ca la war waaye néewu mbooloo yit bu mënu jaaxal bu fekkee ne dañoo nekk ca la war ngir eh, eh, sëriñtubaa dañ koy gis eh, fu bari mu ciy wax ne maanaam nekk gi mu nekk di ku wéet loola terewut mu am kàttanuk mbooloo moo xam ne ñoo ko dar wala bu ko mbooloo daroon sax xëy na wiitaayam wa na ko ca suñu boroom dimbalee ak lam ko ca defal mënoon naa bañ a demee noonu kon bu ñu ko jëlee comme référence rek e, bariwaay moom muy quantité bu ñu ko mënee am ci li gën baax na waaye su fekkee ne mënuñ ko caa amit e, ñun nañ fexe ba la ñuy am doon la gën rek ndax alxuraan saa fu tuddee ak sar muy li ëpp ci nàngam ñaareelam cay teg kenn du ci bëgg a bokk ca foofa kon nag bariwaay bi bu mu ñu fàbbi bu mu lëntal suñuy xel bu mu ñu taxit nu uh, dugg ci loo xam ne xamuñu ko uh, daan na wax ne uh, xaru ñu am nuñ ko ko waxee mu ne loolu dinañ ko gën a teg wala boog nuru na ko waaye xaru daan na ko firee ci ne nit ku nekk ci li ko war di jaamu yàlla na mu ware di moytu ay tereem sa kàttanam nee na am waajoo xam ne la yàllay digle defu ca lu bari la muy tere it wattandiku ko ca lu bari waaye am na ci àddina loo xam ne ku ko xool te amoo basiira da ko ca ñee riir ma bari lool lu mu bëgg def ko fu mu bëgg yegg yegg fa nee na ñoom ñaar ñuy daje ci menn mbedd nee ki nekkoon ci aw yoon di def la yàlla digle e, nga xam ne dafay wetu mongulu ngir coow ak riirum meneen mbokk mais nga xam ne nekkut ca loola nee na kooku nga xam ne moo nekk ci li ma ta nekk nee na bu ñuy daje riir ma fàbbi ko ba tax xelam na yar ci ñee ko dara ci loola nee na kooka mooy kaxaru foofa nag bu ñu fa nekkee rek euh, nu mën a mucc ci lépp loo xam ne am riir la wala luy fàbbee la wala lu ko matut di fexe daal bay nekk ci lu ko mat te la ko matut moom kenn bañ ñu ca séen kenn bañ ñu ca dégg Euh, kiy laaj ci mbirum bor yi nga xam ne occidentaux yi ñu ngi koy lebal réew yi sunu réew yi mbirum bor dafa di loo xam ne yàlla moo ko tënkal boppam bu ñu seetloo lépp luy jëflanteb nit ci biir famille la cay aju yàlla moo ko lijjantil boppam leeral ko mu di ay texte nekk ci biir alquran alalit lépp lu ci nit di war jëflantee ak mbokkam mu jege la walla mu jegewut ginnaaw ñëpp koo dàq mu daw ñibbi ca aadama waaye te ñu tudde mbokk mu jege ñaale la muy séq ak meneen mbokkam loola it yàlla tënk na ko leeral ko ci biir alquran ak moomeel it muy alal eh, sunu boroom moo wax naka lañ ko war a séqe ak naka lañ ko war a jëflante ngir taq gu mu takk ci bakkanu doomu aadama ak bëgg bu ko eh, nit bëgg nga xam ne dañ ko mooñaale loolu dafa mel ni loolu nag bor daf caa bokk gor boobu bu ñuy xool laaye ji gën a gudd wala boo bokk na ci ca gën a gudd ci alquran traitement wu bor moom lay firndeel ci suuratul baqara ca weti mujj ga wala booy jub mujj ga tuuti nañ koy war a séqi ndax ñi ngi koy séqe noonu jàpp naa ne demewut noonu ndax attewuñu ci ni ko yàlla bëgge ci biir saar woowu it suñu borom di ñu ci wax ne jëflanteb alal ci lu teguwut ci yoon nga xam ne nit lekk na alali keneen ci riba euh, mooy tandiku ñoolu ko wattandikuloo nanu ko ci anam yu tar sax ne képp koo xam ne bàyyiwoo ko walla yaa nga cay dugg di ko def jàppal ne yaa ngi dëkk ab xare suñu boroom yàlla yàlla nañ ci yàlla musal kon nag li war a njëkk ci e, bor yooyu système bu ko mën a wuutu mooy dellu ci àtteb suñu boroom ak fexe ba mënal suñu bopp te Sëriñ Tuubaa daf cee def lu ama am solo te mooy système économique boo xam ne nit ki dafay moom boppam la mu waxoon ca ñaar fukk yaak juróom-ñett muy nit ak juróom-ñett yam doon laaj te wax lan moo taxoon mu digle ko te moo di ku la sañal ku ne wala boog ku la mënal sañal la te yàlla na fekk kon ka sañal wala boog ka lay mënal wala boog ka lay sañal doon ka la war a sañal ku ëmb sa sànqal eh, ëmb sa kersa muy système boo xam ne jaar ca suqaliku yombut wala boo gisaguma ko nit mën na cee am luy xoy xoy wala luy law lawi waaye day xëy xëy rek na goyoof ndax lam waxoon ca borom tool boobee nga xam ne da doon bàkku tëdd bët set mu fekk mu ne fuyaam doonu dóom loolu it wala noonu it noonu la sunu boroom tiime peeg lépp lu mën di doon lu mu nu digal dañ caa war a dox muy système yi ñuy teg doon système yu fiable yoo xam ne du sonal kenn te lañ cay am dana mën a barkeel ndax bari li muy am solo lépp barke daf ko ëpp sëriñ bi nag junj nañu lenn li ci form yi ñaan la ko def ñu war koo jël teg ko comme système lu mel ni la bu matlabu shifaa ak ni leneen li ay jëf yoo xam ne tegoon na ko lu mel ni natt yooyu mu daan nattloo nit ñi ñu di ko def te du diis ci kenn te muy jariñ mën a jariñ ñëpp bu dee jamono jii am na système bu mel ni Touba ca kanam nu war a dem ba amit sunu banque bopp yoo xam ne ndimbal li dana yaatu lool te du diis ci kaw kenn ndax sëriñ bi ci ak nekkam wax nañ ne daan na def lu mel noonu muy di jël ay alal di ko jox ñi nga xam ne amuñu ñu leen dimbali wala bokk bariwuñ ñu leen mën a dimbali ñuy jël ca alal ja di ca soppaxndiku di ca liggéey di ko delloosiwaat ñu di ko joxaat ñeneen mu doon fond boo xam ne fond fond bi dafay dafay dafay tourner ci biir nit ñi ña ko daan jëfandikoo daan ci def lu mel ni rablu maanaam di ràbb ay séri rabal ak lu mel ni di def ay mbàndi cuub bu ñu seetloo sax waa këram yi e, ci soxna yi e, koo ci masaana dem ci këram da nga fay fekk mu am ku koy ràbbal ay sër wala koo xam ne wala boog ñoo xam ne dañ dañuy cuub di ñaw euh, nga xam ne ñañu fay yarlu ñëpp ku ci ne dina am métier moo xam ne euh, saa yu delloo ca métier mooma dana ca mën a am lu mu terloo te du tàllal loxo ci kenn du def genn doyadi te itam du am genn ñàkk fayda kenn ci doomam ji sax ku mel ni soxna muslimatu moom entrepreneuriat euh, doxoon na ci ba di def transformation céréale dem ba arme bi mu leen di jox ay cereek yu demee noonu nga xam ne marché yooyu daan na ko gañe di ko def ci nu sell nit ñi ñi mu yar di ca mën a jàng liggéey ñi nga xam ne sax amuñu lu ñu xëyee dañ caa ñëw di liggéey di ca mën a am lu ñu gañe di yóbbu seeni kër te kenn du leen ca yàpp duñu dugg it ci lu duggluwul kon jàpp naa ne ci lu mel noonu buñ ko xalaatee càmbar ko amélioré ko war nañoo mën a dem ba am suñu banque bopp nëgën yi waroon naa fekk loolu di am bu dee usine nag mën naa ne am nañ ko waaye nose ko ba nga xam ne euh, ndax bari na murit yoo xam ne ay industriel lañu euh, loolu su fekkee ne nose nañ ko takk ko mu doon wenn say ni Sëriñ Abdou waxoon ne ay nit bu ñu bokkee loo xam ne mënuñ koo ñàkk te it mënuñ koo séddoo dañ koy takk niw say ba man caa jariñu man caa jariñe loolu bu ñu ko defee jàpp naa ne système keneen du ñu toog rek euh, dëgg la xëy na fi mu nekk ni yomb si xëy xëy dindi waaye nag nañu dox jëm ci loolu te doxe ci it doxin woo xam ne dafay doon doxinu xel euh, doon it doxin woo xam ne dafay tegu ci xam-xam dafay tegu ci diisoo dafay tegu ci yéenante lépp lu baax dafay tegu it ci ak nawlonte ak dara ci alter ego muy bopp sa bopp ñu teg ko nele te xam ne lépp ci àddina bi fu mu lënte wala mu sikk bul jàpp ne mukk mettit woowee mucc nga ci fu mu baaxee it gëmal te jàpp ne loolee yow la baaxal bu ñu ko defee rek e, li baax dana continuer di gën a baax ñu ciy jariñu la doon safaan it dana dem ba soppiku lépp mujj baax ci njàngale ak defaru Cheikhuna Ahmad al Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.